manees naa wax ne lii mu ñu tëjale sax mën nañ ko jàppe tënkub li fi jaar lépp <clears throat> ndax mooy rek liñ ciy jële liñ ci war a jariñoo te mooy sëriñ bi moom ni mel mel na ni ku yàlla tawfiixal ba nga xam ko da nga xam ne ku amul dend la nii na ko yàlla def te du jommaloon na waa jamonoom te du denj di jommal waa jamono itam ci ñu ko xam ba adduna di tukki sëriñ bi moom ni ko waxale boppam suñ boroom la ko def muy kiimtaan loo xam ne yéemoon na ña jamonoonteeg moom fekke ko gis ko te ba àdduna tukki du denc di nekk kiimtaan lool fuñ ko xamee rek mu doon kiimtaan ci ñoom euh, lii mu nettali nii léegi ci ab xew-xew ci Maroc damay fàttali lu mel noonu gaar na ma ak ay bokk ca réew moomee même ba tey dajeeg ay njaboot yoo xam ne dañoo jóge ci maneen réew ci Afrique ñu fekk ñu ci jataay ñu toog di jàng xasida ci weeru koor comme fulku ñu ñëw toog di diglu am ci ku jàmbaare nag ci xam-xam bim biñ toogee diglu njàng mu noppi yëkkati ay ay kayit xool mu yéem ko lool mu laaj ñu kii wax ki lii kum doon ñu tudd tudd ko ko mu ne yéen ci ban tariix ngeen bokk ak foo leen jóge ñu ne ko Sénégal lañ jóge kii mooy sunu kilifa mooy sunu sëriñ ci tariixam lañ bokk mu ne man jàppoon naa ne senegal tudd génn kilifa jàppoon naa ne moom rek moo fa dib sëriñ ma ne ko waaw kooku kilifa gu mag la waaye moom bi mu tàmbalee woote boobu sëriñ bi moom ñëw na jamono ba woote na ba liggéey na fi li mu fi liggéey ba génn àdduna mu doog a tàmbali booteem loolu day wane rek ne toll nañ ci jamonoy aajo woo war a génne woote sëriñ bi ak yoonam wii akum njàngaleem ngir àdduna xam ko toll nañ ci te nag jamono jii ñu toll jamono la joo xam ne lu waroon a doon ngànt ci jamono yi jiitu rek doonatul ngant ndax fi ne moom jumtukaay yëpp jàppandi na yëpp ngi ci sunuy loxo yitam ci anam yëpp nag benn wet desut li des rek mooy yitte ji ak taxawaay bi ak nos ko ak seetit nag buñ koy def anam gi ñu koy defee xam naa kon ni ko sëriñ bi waxee ñu jox sëriñ Ahmadul Badawi mu tëj jataay bi ñaanal ñu bu ko defee kuréelu xasida yi ñoom ñooy yeggaleel des ci jataay bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.